yàlla yàlla xoolal mbay si sunu ngëm mi yóbbu ko. si. sunu ngëm nu yóbbu ko. waaw sunu ngëm. yóbbu ko. yàlla yàlla xoole nu mbay. sunu ngëm nu yóbbu ko. nun de yàlla yàlla xoole. sunu ngëm nu yóbbu ko. yàlla yàlla xoole nu mbay si. sunu ngëm nu yóbbu ko. waaw sunu nga yóbbu ko yàlla yàlla wala suura mbay si ndok suura mbay si man suura mbay si man yu soora mbay si man yu soora mbay si soora aaja abuddu moo di sa baay na man yi jox na la waay yan bi tey mu bindu ko waaw sunu nga man yu soora mbay si man yu sóora mbay si man yu sóora mbay si man yu sóora mbay si man yu sóora mbay moo di sa leena mag ñi jox na la waay bi tey mu bindu ko faral bay sunu ngër man ni suura mbay si ndokk na waay aja abdu moo di sa baay nee na mag na la waay yan bi tey mu bindu ko nee na Maodo ànd na ci Babacar Si ànd na ci Cheikh Tidiane Chérif Matafaas ànd ci mu joxol la ko amiin yàlla yàlla xoolal mu may sunu nga nu yóbbu ko yàlla yàlla xoolal mu may sunu nga nu yóbbu ko góor ga nee na Maodo ànd na ci Seydi Mbaye Sy ànd na ci Cheikh Tidiane Cherif Mata Fass ànd ci mu joxol la kullu maaruhi fi tariq annabi asa ko wax aja abdu lii mu la jox kon rasool wéyal na ko amiin yàlla yàlla xoole mbay waaw sunu nga nu yóbbu ko yàlla yàlla xoole mbay sunu nga nu yóbbu ko ñana mag ñi jox na ci Babacar Si ànd na ci Cheikh Tidiane sarifu Makka Faas ànd ci mu joxolok tayit kullu ma ruwi fi tariq annabi asa ko wax aja abduli mu la jox kon de sool na ko ami yàlla yàlla xoole nu mbay sunu ngaram ni yóbb ko yàlla xoole nu mbay sunu ngaram ni yóbb ko nee na Maodo àndoon na ci Babacar Sy àndoon na ci Cheikh Tidiane Cherif Mata Fass ànd ci mu joxoon la ko kullu maaru wii fi tari annabi asa ko wax aaja abdu lii mu la jox kon rasul wéyal na ko tey itam si yaay ki ko moom tey itam si yaay ki ko moom yaa di dem ba na samaam ku neex li li fi am ku bañit defee fa na ko amiin yàlla yàlla xoole nu may sunu ngëm yóbbu ko yàlla yàlla xoole nu sunu ngëm yóbbu ko tey itam si yaay ki ko moom yaa di demba na sa maam neex li li fi am ku bañit defee fa na ko yàlla buur bi ay dogalam ab jullit da koo war a gëm sóoram bay simili mu am duy palaa fexe fu ko amin yàlla yàlla xool nu mbay sunu gëm nu yóbbu yàlla yàlla xool nu mbay sunu gëm nu yóbbu yàlla bur bi ay dogalam ab jullit da koo war yàlla bur bi ay dogalam ab jullit da koo war سورم بايسي ليني مو ام دي بلا فخير فوكو يالا يا ربي دخنا لوكو نانا يا ربي دخنا لوكو فانا دار دخنا لوكو يا ركور دقل نكو امين يا الله ولا نمي واو سنبن يا يا الله ولا نمي سنبن يا ربكو غورغا نانا يا ربي دخنا لوكو نانا منجي jox na la ko toona daara jox na la ko weeru koor dëggal soora yan bi diisu na yal na la buur soora yan bi diisu na yal na la buur na yal na la buur yal na aar te yokku sa wér yaram di gën di sawar say atit mu dolli ko amiin yal na yóbbu ko yal bi diis na yal na la buur yàlla aar te yokk sa wir yaram diggandi sa war say atit mu dolli ko soora mbay lu tee du ko am soora mbay lu tee du ko am soora mbay lu tee du ko am soora mbay lu tee du ko am yàlla buur bi fay ko xolam pël ba xëy di sàmmi nagam ngoon ma meew ma jomb ko waaw sunu ngëm yóbbu sunu ngëm yóbbu ko soora mbay lu tee du ko am soora mbay lu tee ko am soora mbay lu tee ko am yàlla buur fay ko jëfam pël ba xëy di sàmmi nagam ngoon ga meew ma jomb pël ba xëy di sàpp ngoon nga meew ma baara jàng man sërëy bindal ku fa ñëw kàggu mbay si timbi Demba Mbaye woyoon na ko. amiin yàlla yàlla xoolee nu mbay. waaw sunu ngëm. yóbbu ko yàlla yàlla nu mbay. sunu ngëm yóbbu ko. Soora Mbaye lu tee du ko am yàlla bur bi ko xolam pël ba xëy di sàmmi na gam ngoon nga meew ma jomb ko daara jàng gaañ a fa teew man suura yi bindal ku fa ñëw kàggu mbay si. timbi na waaw banda mbari woyoon na ko góor gi nee na lii ma la jox Seydou Seex Tijaana ko wax lee wasiya bi ma la jox naa ko bind dàpp ko ami yàlla yàlla xoole nu bay sunu ngërëm yóbbu ko góor gi nee na lii ma la jox Seydou Seex Tijaana ko wax ne wasiya bi ma la jox naa ko bind daptu ko kon li jaadu mooy nu taxaw déglu soora mbay dafa yiw abdu mbay si nee nu taxaw àndandoo te jàppale ko dana yàlla xoole nu mbay sunu ngëm yóbbu ko dana yàlla xoole nu mbay sunu ngëm yóbbu ko kon li jaadu mooy nu taxaw déglu soora mbay dafay Abdou Mbaye si ne nu taxaw àndandoo te jàppale ko Abdou Mbaye si ne nu taxaw àndandoo te jàppale ko Abdou si ne nu taxaw àndandoo